présenté wu avant tout damay nuyu waa sunu People TV euh, di nuyu yow mi nga xamante ni euh, yaay borom télé bi waaye nag aussi bu may wax dama naan lamp moom ñu ngi ko xamee ci lampe le parfumeur des star donc dëkk parcelle di benn jeune euh, wax dëgg yàlla am lu mu bëgg am ambition di jaay ay parfum ak ay montre de classe bon mm, dëkk parcelle di nuyu waa parcelle 1 ba di nuyu aussi fii ma nekk borom salon bi nga xamante ne mooy Makan Bay moom aussi yàlla dogal muy wat ñun kilifa yi nekk ci réew mi yëpp donc maa ngi leen di nuyu di ñaanal ci télé bii jàmm ak xéewal ba mu dem ba doon comme Canal Plus incha allahu rabbi bon li tax ma pose comédie bi mooy man Sanekh dafa génn en deux mille 2004 donc ma bokk ci ñi ko njëkk a commencement ay foo la woon sax mais avant loolu am na benn talent bu nekk ci man boo xam ni euh, ci man rek la ne donc ma nekk di ko imiter ba mujj gi affaire yi euh, commencement ay mbalak laa ko jëlee woon mais ma dem ba mujj gi nag sama tur egg foo xamante ne ma def ko liggéey ci biir liggéey boobu day am ñoo xam ne da lay bëgg te yàlla tax am ñoo xam ne da bëgg ndax saa neex min bëgg donc ma am ay contact ma xam ni nag li olof Njaay naan war nga day war ci dara aar kase du liggéey foog mu am ci lu mu tegu ci laa commencé jaay ay parfum en 2005 2006 bon may jaay may jaay di jaay boole kook des fois mu amee sama prestation dem ndax. artiste booy def benn liggéey ñu xam na ci art bi rek prix bu la neex lan lay fay mais bu ñu xamee ne yaa ngi yëngu ci dara lu bokkul ak art bi dinañ la gën a respecté bi ma xamee loolu ma continuer parfum yi nga xam ne ku may woo day xam ni yow lii nga may defloo am na leneen lu ma bàyyi te foog nga fay ma lu ëpp li ma am pour ma mën a euh, defal la li nga bëgg donc bi ma ci nekkee mu dem bu mujj gi euh, parfum yi nag ëpp ma doole parce que art du chaque jour prestation am mais parfum chaque jour nga am client donc loolu aussi avant tout ma ci saluer Cheikh Gueye ndax bu ma neexoon mu tere ma euh, ma koy imiter mais loolu fierté bi mu ci àndal moom sama papa la sama mag la sama kilifa la sama lépp la maa ngi moom 2004 ba léegi donc dara ñaawul bañ ne ko ba anniversaire am sax man maa de premier partie bi. li njëkk waxtaan mooy benn boutique bu ñuy wax la benn boutique bi Ibou Sall bu nekkoon fii unité 12 lan daje. mu may xool ba ci àgg mu ne ma est-ce que xam nga ni yow dañoo nuroo. ma ne ko waaw boobu ma ne ko waaw man de ñu bëri ñu ma koy wax mu ne ma defal ma sama benn partie bu ma bu ma bu ma mës a def ma defal ko mu ree ba daanu ci suuf daani kon man ndakate nii laay def nit ñi ma ne ko waaw nii da ngay def nit ñi ma defalaat ko yeneen partie ndax boobu bëgg naa mu xam li ne ci man donc depuis jour boobu la ma décroché fu muy demati léegi moom avant muy yéeg daf may bàyyi ma yéeg ba def prestation ba pare moom mu doog a ñëw donc noonu la suñu relation fondée mais avant boobu xamoon naa euh, famille de sa femme quoi donc ñoom ñoo gën a yokk liaison bi am sama diggante ak moom foofu lan commencé xamante ma ak moom mujj gi moom bu tukkee sax yenn prestation yu mu war a def fii dafa ma naan ma lamp kat maa ngi nii Angleterre wala maa ngi nii France wala maa ngi nii Amérique mais waroon naa def prestation demal nga defal ma ko donc man ma koy defal à la place de moom quoi noonu la suñ diggante demee. bon boobu nag euh, mën naa wax ni soutien de famille la te comme que sam aussi jëm na mag bëgg ko jël relève bi. donc ci laa génn mu ne ma damaa bëgg nga nekk fii ma ne ndax bientôt damay arrêté carrière u immigré damay dem toog Sénégal ma bëgg nga ñëw ma wan la terrain bi donc ci laa génne di j'ai fait euh, j'ai mal de pays donc presque 17 pays ma fay jaar pour bëgg lu ma am euh, ak di daan sama doole presque maa ngi fi jógee fin 2013 ba décembre 2018 laa ñëwaat Sénégal donc nekk ci def Afrique bi euh, wëndeelu ndax li li borom xam-xam bi di wax góor balaa muy mat góor wëndeelu ma nekk ci yëngu ba yàlla dogal nag bi ma ñëwaatee fii Sénégal samay nit yi ma amoon avant ma leen di jaay parfum ñu ne ma yow Lamp Sénégal sa dëkk la boo fi toogee loo bëgg di ko fi am ci laa continué ci samay parfum ba yàlla dogal nii fi mu toll nii namatuma fenn euh, ma toog Sénégal xanaa bu may dem pour jënd ay bagages ñëwaat waaye immigré moom pare naa ci. aar bi aussi lu ci bëri dañ may invité may def ay émissions. ndax yàqul dara ci li may def te incha allah am nañ ay programme yoo xam ne avec le temps euh, di ngeen gis yeneen i affaire yu bokkul sax ak commerce parfum bi incha allah rabbi waaw parce que dama mës a toog ak Aziz ak Cheikhou Gueye ñu ne ma lampe dafa am lu ne ci yow lu ñu soxla heure bu ñu ko soxlaa dinañ ko décrocher ci yow man leen amul problème donc bi ma ñëwaatee Sénégal ñoom gëmuñu ko sax ndax jàppoon nañ ni bu ma ñëwaatee rek damay def vacances 3 mois comme gars yi 4 après dellu mais bi ma ñëwee laa leen fii laa toog. donc bi koor gi amee ñu ne ma nag dafa am loo xam ni yow rek yaa ko mën fokk nga defal ñu ko ci laa ñëwaat duggaat soleil vent ñu def euh, ndogu spécial ndogu yi ci kooru 2020 bi vraiment ma leen ci nuyu ñoom ñëpp nuyu Cheikh Ndiaye bu baax ndax ñoom ñëpp moom dan maa bëgg dan maa bëgg ba man ma xam ko Guèye Teranga Cheikhou Guèye Cheikh Ñaan vraiment ñoom ñëpp ñoom ñëpp samay xarit leen tournage aussi yàlla def ci tawféex ba bi ma egsee amul benn partie bu ma tourné ñaar yoon bu ma tourné ñu ne ma nice te loolu euh, ñoom ñoo ko def sax ci man ndax euh, ba may commencé dama daan wax ñu ne ma noonu ni nga waxee nii baaxul defal nii mu dem ba mu jiggi damay wax loo xamante ni sax programme yu ma ko donc loolu am na lu mu participer sama carrière surtout ma Cheikhou Gueye aussi. waaw Wally ñu ngi xamante en mille 2002 euh, jamonoy coupe du monde ya bu masaana am dañ daan ànd di jouer babi ba fajar jot ñu dem tëddi donc bi may commencé di imiter Sanekh marché HLM bu masaana am. Euh, wanteer ci événement Korité ak Tabaski dama daan jaayal maire Seynabou saar maa ngi koy nuyu borom Roxaan boutique donc Waly dama fa daan fekk kon Waly sama fan fans la woon man ba may nekk ci aar bi boobu Waly wayut fubbalagul da doon jàng pare de la fosse ñëw di ma seetaan si foofu ca asalem nekk sama fans man maa ngi koy fàttaliku bi mu njëkkee ñëw sax bi muy dem dafa jënd ñetti paire marakis jëndal coon papam benn jëndal moom boppam jëndal ma man mooy marakis yi fi amoon épée te euh, ciy dessiné épée bi ci catu marakis bi boobu kon xam loolu yàgg na donc noonu lañ continuer c' était pas trop fréquent mais li mu bi muy fréquent dëgg nag c' était en 2007 boobu gul single bi bi muy génn single man aussi bu ma xëyee jaay moom it mu nekk ci affaire bi ba bi muy dugal morso Love Impossible bi mu ne ma dama soxla benn voix trent secondes boobu maa ngi am ku ma doon livrer ay parfum mu ànd ak Njóogu Mbay ñu ñëw ma dugg studio Paul dugal voix yi ñu ne ma nice clip bi yaa koy def. ci leen tourné clip bu love impossible bi mais avant loolu aussi euh, day sama xarit boo xam ni dafa maa bëgg ndax boo waxee li tax ma jàpp Wally mooy fii ci jàmmalaay dafa avant muy takk soxna dafa ñëw ni soxna présenté naa la ku ne mais kii damaa bëgg nga xam ni sama xarit la ndax dëgg moom benn xarit rek laa am bu may wax dëgg carrément mu neex ma ak mu naqari ma ma xam ni kii dëgg la ma wax muy làmp dama bëgg nga jàpp ma ko loolu benn weeru koor la woon donc ci la ma présenté soxna ñu am ay lien boobu ba léegi dara ñaawul ah, muy nit ku modest aussi euh, te it euh, avant loolu aussi bi muy génne cassette woo na ma man maa jaay cassettu ne woon naa la bi aussi maa ko jaay te loolu kóllëre mooy tax nga xam ni kii da war a ànd joru cassette jot ma jaay xaalis bi maa ko encaissé mu ñëw ba sama buntu kër jox nit ñi li muy jox daan ni ma xaalis baa ngi nii ñaata nga ci soxla ma tëj coffre-fort bi fi xaalis bi nekk ma ne ko man doo sama woykat man sama xarit nga dañuy ànd te yàlla tax dama laa jàppee kii doo sama waykat li ma nuy ànd ak yow lii laa doon xaar nga dem ba génne kaset ñu koy jaay muy jar àdduna bi di la xam woon naa la bi jotaat ma defaat même geste bi mu indiwaat ma yor chrysler bi ma ne ko xanaa déggoo li ma la wax man doo sama waykat man sama xarit nga donc euh, loolu mooy jiitu affaire way bi mu commencé way première soirée bi mu njëkk way man maa nga fa woon du ko fàtte maa ngi ànd ak sama benn bu jógeen Portugal ma ñëw ñu fekk ko Sahel première soirée du ma ne sax bi muy def premier parti mais première soirée bi muy téye micro boobu man maa ngi fa woon ca Sahel mais loolu je pense que c' était en 2007 boobu la doon def premier parti ba 2009 ci la génnee boo juddoo après yeneen kaseet yi topp ci ba ni mu mel nii te ñuy ñaan yàlla mu sax te yokk barke maam Cheikh Ibrahima Fall mi mu yaakaar man ma yaakaar ko waaw li ma ci mën a am moom mooy artistes yëpp samay avant tout frère lanu mais aussi samay client lanu ndax yàlla dogal na ni parfum yi may jaay. que ça soit les douaniers les marabouts les transitaires les musiciens les artistes les lutteurs les chanteurs ñoom ñëpp samay clients la ñu donc li ma ciy wax rek moom mooy dégg na affaire bi bi ma amee mu ma fekk ci dëkk bu tedd bi ñuy wax Medina Baye ku tedd tëdd fa tëdd fa may nuyu may nuyu xalifa bi nga xamante ni mooy Cheikh Mahi ak Cheikh Mahi si sa porte parole ak doom yeeg setu Maulana Cheikh Ibrahima yëpp di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal ñu yàgg fi te wér affaire yi fa la ma fekk bi ma ñëwee ci laa toog seetaan vidéo yi seetaan commentaire yi man xam naa Sidi Diop du ma ne xam naa ko au fond des fonds mais xam naa ko Wally moom laa gën a xamati ndax fi nu jaar maa moom mais bis ni muy demee léegi ni ma gis ni koy doxalee ci bis showbiz showbiz buñ koy wax gaa yi dañoo jël moowu showbiz bi. yóbbu ko foo xamante ni showbiz du demee noonu showbiz dafa war a nice da ngeen a bokk milieu ku nekk di am lu muy gérer mais aussi ku ci nekk li sa moroom man nang ko ko nangul di il vient presque de commencer carrière musicale am man seetaan naa ay soirée yoo xam ni Wally da koy woo ba ñëw mu ne ko kii a mën a way jox ko micro may ko xaalis teral ko woo ay nitam ñu teral ko soirée Wally sax bu teelee jeex gars yi kon ne ci Sidi Diop di ko jàppale donc Sidi buy tëgg soirée aussi dina am ñu ko bëgg dina am ñu ko bañ ni muy amee ñuy ñëw di programmer pour teral ko noonu lay amee ñuy ñëw pour indi safaan ba te boo moytul pompe à ba sax ci ay nitam lay bokk ndax des fois da ngay gis ku ñëw yor xaalisam bëgg teral nit des fois nga gis ku ñëw aussi yor pompa à gaz bu ko neexee bu ko piisee soirée bi tas mën nañ cee këf ay cheveux naturels jël ci seen nit seeni portable créer fa ay bokkaat ndax Wally gisuma ban intérêt la Wally am ba tax mu war a mën a yónni ay nit pour nu ñëw di yàq si Sidi Diop ndax ñoom ñëpp ci corona bi ci lañ commencé waat Wally toog naa mu ne ku jekku da ngay bàlle bu ko neexoon bi ne boîte yi ubbi na day joué mais daa bàyyi ñi ci des am dàq seen wërsëg te yàlla teg na ko fi ndax Youssou Ndour bi fi ne. dàqul woon a way ñoom Njaga Mbay dàqul woon a way ñoom euh, Elas Fay Sàmmina dàqul way ñoo ñëpp mais yàlla la jël def ko mu saf xolu nit ñi foofu la wàlli toll mu ñëw moom it dàqu fay way mais yàlla dogal nit ñi jox ko bopp li ma waxoon rek laay waxaat yàlla jël bayrem sànni ko ci géej gi jën yi naan bayre bi nit ñi lekk jën yi nit ñi dañuy bëgg wàlli mais moom xam naa ci moom ñàkk kiñaan ak xol bu laab ak ñàkk kiñaan ak yéwén goo xam ni yàlla xam na ni moom sax boo moytul boo xamoon ni Sidi Diop day tëgg ci boîte boobu moog waale ñu bokk waale mën naa bàyyi ba sam mu sedd mu bàyyi Sidi Diop mu doxal donc showbiz du ay affaire clan kii far na fii ànd naag producteur bi kee far na kee kee mooy manager am kee kee non loolu du showbiz. nit mais mooy li ma lay wax ni ñi nga xam entourage bi nga xamante ni mooy waali waali nag yàlla dogal na nekk na nit ku mat man li may wax ci waali waali bu ñu gaare woon fii oto mën naa jël samay malet dem mën na noo sax bañ a jaaru taal moom xam na li may wax man xam naa ko ko ak boroom da koy nangul fu ma dem damay seede ñeent yi muy ku fonk njaboot la ku nangoo liggéey la ndax yi yemul ci monde musique way kese am na ay business su personnel boppam yu muy yu muy maye yu muy def ñetteel bi ku nangoo joxe alalam la te ñett ku koy waaj koy def muy xeex ak joxe ak sangu seddaay ku koy waaj ko def te moom lim lay jox ba mu yéem la moom jàppewu ko dara donc kooku euh, dañ koy ñaanal rek carrière mu yàgg te wér te cat bañ ko topp ndax olof Njaay sax nee na ku tudd sa lépp loola dal moo la ko teg moo tax duma avancé ci ay mbiram dama koy ñaanal yàlla te li mu mbëbët ci xolam yàlla na ko yàlla fay lu fawxa li mu xalaat ci musique barki yonent yàlla Muhammad bi jullit yëpp bokk bon Sidi aussi dama bëgg mu xam ni Waly magam la Waly moo ko jiitu déjà ñetti yoon magam la dafa nekk magam ci le monde musical ndax moo ko jiitu musique nekk magam ci askan nekk magam ci ay at di mën naa bañ a nekk géwal Wally doon géwal te ku ne xam ne ne aaru Sénégal bu ñu wax géwal yee jiitu bu nekkee ay at la waalee ko mag bu fekkee sur le plan musical Wally moo ko kii kon ban intérêt la waali am bay jël kii lu dul ay nit yi nga xamante ni ñooy def fii kalan Wally te nitu Wally ak nitu Sidi Diop ak nitu Pape Diouf benn lante ñiy jaxasee ci Pape Diouf ñooy jaxas Sidi Diop di jaxas ci Wally ndax noonu daroo yaakaar ni monte concurrence mais Youssou Ndour a ngi nii ak Thione Seck ak Bamal ak Ismaël Lo da gis ay festival wala ay son yoo xam ne ñoom dañ koy bokk pourtant ñoo dàqaway booy yi fuuf ëpp leen xam-xam gën leen a international ëpp leen xaalis mais fexe nañ ba rafetal musique bi kon nii di ñëw wax dëgg yàlla buñ ko mënta rafetal rattaxal ko comme ni ko seen bàyyi defee na ku nekk téye sa bopp continuer sa yoon du wàññil sa morom dara ndax Sidi li mu war a am wërsëgu jàmm bi wërsëg ak dee ñooyam foo nekk ñu fekk la fa Sidi li mu war a am kenn mënul wax ba Sidi du ko am waali mënu ci dara waale li mu war a am Sénégal jaay jépp kenn mënu ci dara ndax war na koo am te loolu teel a nangu day yombali duma mais ñoom ñoo war a xool seen entourage seppi ñi nga xamante ne ñoo war a ànd ak ñoom mais Youssou Ndour a ngi nii mosoo dégg ñu naan kii ñoo yor ay entourage am il a des personnes très discrètes yoo xam ñoo ko nekkal ci terrain bi li muy lijjën sax doo ko xam des fois nga gis benn YouTube Youssou Ndour boo xam bu la waxee fi ko Youssou Ndour teg da nga naan déedéet jëmmam sax du ko wane mais Sénégal lu bëgg ay kalan ñëw taxaw Youssou ndu joxe ne exemple bi nit da war a raar du lu jug nga wax du lu jug nga réagir avant ngay toog sax naan non ay waa kër Waali wala waa kër nangam ñoo ñëw pompe à gaz fa da war a am des source sûres yu la wóor ni ñoo ko def waaye ay nit ñoo leen di jaxase jaxase fii Sidi ñi toj fii Sidi eh, moo def lii Sidi moo def Sidi mu ngi def carrière am nice mu ngi am ay tournée am waale mu ngi am mais c'est quoi le problème xam nga Sénégal nag toll na dëkk boo xamante ni loolu la wax gëm ko commencement mën nan laa wax lii fekk lëlële mën nan laa wax lii fekk liñ la wax aussi moom moo am mais man damaa yaakaar ni euh, ni ma nekkee ci dëkk bi di gis ku nekk ni ngay wax pour man warta nekk problème affaire buzz peut-être buy nekk ci buzz mën naa am benn clan bi moo bëgg a am buzz boppam te xam ni ci diw la ko mën a amee mais defe naa ñoom ñaar duñ def la liaison pour créer yenn buzz yi parce que bu dee way la waali nit ñi xam nañ ko ba pare soxlawul buzz wala muy def lenn waali li mu am ci buzz macha allah yàlla na sax te yow soxlawu ko Sidi Diop aussi nit ñi xam nañ ko donc man damaa gëm ni li nga wax sànq la rek affaire entourage nit il faut se préparer physiquement mentalement pour mën a def carrière ndax mais bu fekkee ku jug nga dugal ko sa bopp loolu la wax nekk benn nopp yaa dàq way kii kii doo moroomam nangam ak nangam def ko naa bu ñëwee ci waale wax ko loolu loolu lépp li ko indi moom mooy latte ndax bu fekkee ku jug wax la ki la gis moo lay wax mais bu fekkee da ngaa tëju sa bruux gérer sa carrière du ko jug euh, ñeme la sax ba lay dugg balay nettali ba nga koy gëm donc nit ñi danoo war a xool seen toogaay xool ñi ni fréquenté xool seen fréquentation te wàññi xoolaat seen euh, entourage parce que léegi musique bi ni ma ko gisee affaire clan la kii man maa nekk fii duma ma wax ak kii kii man maa ne fee du ma waxal kii moo ñëw soirée baatere kii kii moo ñëw soirée baatere kële te man maa ngi nii man bu ma neexee maa moom sama xaalis bu ma demee soirée waale mën naa faa baatere mën est-ce que euh, tax na ma bañ Sidi Diop mën naa dem Sidi Diop baatere tax na ma bañ kii mën naa dem soirée Pape Diouf nit ñi kanaa yooyu ay kii euh, euh, diwul fii la far ñaaxarañ loo dégg naa ñu ne dem na benn soirée Sidi Diop mais ñaa Euh, c'est un élément boo xamante ni musique moo ko moom bu ko neexee nekk ci Wally bien vrai que étiquette am vraiment den mais bu ko neexee dem soirée Sidi Diop loolu moom mooy ay gestes yu rafet dem Sidi Diop dem Pape Diouf dem fii yow yaa moom sa bopp da ngay bégal sa xol say nit lanu seq ngeen laneen loo xamante ni du musique nit ñi fokk ñu xam ni musique du affaire concurrence animation ay animateur du affaire concurrence euh, euh, artiste feccikat du ay affaire kii ku nekk sa baat sax avant tout neex na la te ku nekk kala neex moo tax Ndiaga bi nekk ku mën a way mu ne ñëpp mën a way ndax ku nekk am na ko ko koo xam ne sa baata ko neex donc ñoom nan limité affaire bi te bokk ndey bokk bàyyi nangu ki yàlla jiital ndax ku la sut nga naan ko njool mi taxulaa gàtt man gisuma waali lu muy soxoree Pape Diouf waali bu dee kër gu rafet la macha allah am na ko bu dee soxna su baax la te sell te yiw am na ko bu dee oto la am na ko bu dee xaalis suñu borom mu ngi koy dimbale kon lan lay iñaanee nit bay dem ci moom yow boo xam ne boo tëggee sa soirée sa six entrée mooy benn entrée waali mais loolu ku la ñee du la dolli voilà waali moom nan la mën a defee soirée entre trente mille kii def cinq mille ba pare waali di yàq soirée te trente mille bi sax avant jour bi une semaine bi jeex na donc kooku lan la lay soxla sii di ku ñëw di ko nettali loolu war naa gëm ni kii entourage am nit a ko bëgg a yàqal digganteem ak waali mais waali tadut loolu vraiment sama xalaat actualité bi mooy immigration clandestine waaw jël nga immigration mais jaaroo ci bateau yi ci gaal yi mhm. tey boo ci doon joxe am naa sax fu ma jaar ci yoonu suuf man dox naa diggante Namibie bi ba Angola quinze jours dox naa ko maa ngi dox le premier mars ba le 15 mais immigration diine sax li mu ci njëkk a wax mooy boo ko defee. mais mais Lamp ñëwal waaw jóge naa fii wàcc naa 6 dox naa Namibie Windhoek capitalu Namibie fu ñuy wax Windhoek Nord North Windhoek foofu laa doxee ba région bu ñuy wax lu Lubangu ca Angola maa ngi dox le premier mars à huit heures. ba le mars à 14h laa egg fi ma jëm. naka ngeen yoon parce que lekk waaw parce que moom ay suusal laa yoroon ak sama mbuusu ndox def ci def ci def ci ay banaana banaana yi nga xamante ni du du ñor. non foofu laa ko jëndee ah, dama ñëw fekk benn sénégalais ba am genre suusal may ut sama ndox ak sama suukar bu nu demee ba kii ma daal di muusal nànk ay garab lan doon fanaan ci kaw garab. dañuy fanaan ci kaw garab ndax fanaan suuf malay mën naa kii te danoo jàpp ne ci kaw garab mooy gën a neex te ci kaw garab sax am na animaux yu yéeg mais yàlla mooy sàmm nit ñu dem ba kii quatre personnes lan dox nañ ba nit faatu ñu suul ko continuer dox waaw koo xamante ni yàlla na yàlla suuf seral euh, euh, yàlla na yàlla seral suuf ci kawam benn centre africain la boo xam ne dafa dox ba faatu ñu denc ko continuer suñuy activité man duma ko conseil kenn ndax jaar naa ci man dox laa jaar ñii sax ndox lan jaar man dox laa jaar mais nit loolu lépp man damaa gis ni ñaar moo ko waral euh, avant tout mooy parents yi déjà yow da ngay nekk ci kër ñu bëgg laa sas loo xam ne àttanoo ko wala ñu jox exemple boo xam ne wërsëg yemul sa doomu baay bi am na lii da ngaa war a am lële sa doom kii sa nawla la kii seen ñaari bàyyi bokk ndey ak am na lii mu ngi def lii te defoo ko ñoom ñoo njëkk ruux seeni doom pour ñu dugg ci gaal gi nan xam ni affaire yi lu mu bari bari fii dañ koy bàyyi te it diine dafa wax ni bunt boo wóor ni ku fa jaar mën ngaa faatu boo fa jaaree boo rëccee xaru nga boo rëccut xaru nga ndax wóor la ni fii ku fi jaar da ngay faatu donc nit a ngi dem ba ñëw tabax kër am soxna ami doom fekk xaru na bu yàgg ci diine mais alal jaru ko ndax boo nekkee fii man maa ngi ni tukki woon naa quatre ans mais yàlla dogal na bi ma ñëwaatee li may am fii bi ma tukkee aw ma ko loolu nag damaa gëm sama bopp gëm sama réew gëm ni wërsëgu jàmm bi yàlla la xam ni yàlla daa def àdduna bi mu yaatu pour foo sentirul sa bopp nga dem feneen mais pas di ko jaaree ci yoonu géej ndax du solution waykat yi way nan ba sonn gars yi lancé nan message yi et puis nit boo amee dëgg wax dëgg yàlla man damaa jàpp ni mooy boo bëggee dem ci réew dajaleel document yi nga xamante ni mooy maye nga dem ñaan visa bun lay may ñu may la bun la mayut bëy mu daan dund ba màgg ci ba am sikkim bu gëmee boromam mën na cee dund ba xëy faatu ci kàttanu yàlla na nga nekkoon na nga def ba am cent 600000 yi nga fay wala un million pour dugg ci gaal gi mais li nga def ba am ko boo ko defee mën nga am cinq millions ba 10 millions te doo génn sa réew di nga seeti ko wopp di nga jaale ko dee di sol la neex di dem fu la neex mais bëgg riir ah, borom xam-xam yi dañ koy wax al jamono dina ñëw bu utum dërëm dina tax bakkan yu bari des ci géej gi te loolu alalu àdduna jaralu ko waaye nag nan xam ni parents yi leen ko teg ñoo leen teg boo xam ni ak di leen jox ay exemples yoo xamante ni affaire yi demewul noonu mais booy aussi war na noo gëm seen bopp mais it état war na cee taxaw ndax dëkk dafa soxla jeune yow boo demee ba Sénégal bu nee ay 65 wala 70 pour cent sont des jeunes jeunes yi ñooy avenir da leen war a jàppale ñoom it des kenn du leen jox toor parce que ñoo xam li leen sababloo ban bugg ci géej gi xam nga ni géej ni mel feuille rek dafa métti waxuma laa nga nekk ci géej ay 10 15 jours pour dugg espace ñooñu amuñu lu leen gënal bu amoon lu leen gënal même bu ñuy xëy di daa am 10 000 francs par jour chaque fin de mois ñu am 300 000 réalité seen affaire moo leen gënal bu nu demee rek amatuñu solution waaye nag loolu aussi taxut mu doon solution. looy may gars looy tàggatoo. bon li may tàggatoo mooy euh, dafa amoon benn waay waa ji dafa jàng alxuraan ba ba ba ba bi fees mu ni woon nag. Euh, day léegi li muy gis xale jigéen yi di ko sol nii neexatu ko daal man damay jéggi traversé pour mën a jaamu yàlla pour nga xam ne rek nit ki day maandu ku nekk na na na na xam na yem ci lim xam bi loolu amee mu ñëw ngor fekk fa benn booy ni ko booy na nga def mu ne ko ça va mbaa yaa ci jàmm mu ne ko maa ngi ci jàmm mu ne ko alhamdulilah damaa bëggoon dem deuxième plage booy bi ne ko amul problème ñaata la mu ne ko 5000 daal di luyee gaal gi ànd ak booy bi ubbi yi commencé jàng di jàng di jàng ba ci àgg rek daan bi mbaa jàng alxuraan booy bi ni ko déedéet loo jàng booy bi ni ko dox mu ni ko laa ilaha yow sa bàyyi sàggan yow nga xamante ni jur sa doom doom ni neexee alxuraan ni mu foore jàngaloo ko nga koy jàngal ndox xanaa jàng français booy bi ni ko déedéet loo jàng booy bi ni ko ndox mu ni ko laa ilaha illallah yow yaa ngi yàllaa ngi tëkku sa bàyyi commencé tari ay xista booy bi di ko seetaan rek mu ne ko léegi xanaa jàng portugais ak espagnol booy bi ni ko déedéet loo jàng booy bi ni ko ndox far yàlla nattu leen ñuy daw di daw ba ci yàgg far gaal ga këpp paa ba ànd ak téere ya loon de caaya juré jàkk dugg ca ndox ba naan ca ndox ma dem ba nara a lab booy bi nuuru ci biir génn bës dënnu paa bi bés muu ci gémmañ ji ba ndox mi yépp génn paaseel ko ay yërëm ba mu tàlli paase téere ba mu tàlli naaj bi jàpp ko ba téere yi fendi booy bi toog ba ci àgg ne ko père daa mel ni baax ndox baax na mu ne ko dama romb alxuraan laa wax <laughs> kon nga xam ni nit <laughs> dafa war a yem ci li nga xamante ni moom mooy domaine am nit day màndu bon mm, euh, may tëj nag di remercier di ñaanal télé bi mm, yàlla def ci barke ndax yàlla rek moo yor barke te it borom télé bi xolam mel na noo xam ni gëm na boppam gëm boppam boo xam ni euh, télé bi mën naa dem ba doon TF1 wala kanaal plus ndax liggéey na ko te it ki mu yaakaar maqaamam mën na koo jox lu ëpp loolu muy DJ Yves ñu koy nuyu bu baax mu jàpp suñu carrière li ñu doon tey rek moom la si tous les plans sànq dama doon wax ci ñëw toog mais bi ma ñëwee moo ma njëkk a wax ni ma Sénégal fii rek boo fi toogee di liggéey ndax sa dëkk la di nuyu Makan bay di borom salon bi di nuyu Sénégal gépp ndax ku lim da ngay juum te man yàlla dogal na ni ñëpp samay xarit la ñu ñëpp dañ may bëggee ñëpp dama leen di bëggee ñëpp dama leen di jaay ay parfum am na ñoo xam ni même bu naree jënd faneen parfum ñëw gi may ñëw seen kër rek dajji leen ñu toog waxtaan day tax ñu jënd ci man bëgg maa jàppale. donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu fii salon bi ñu fi fréquenté ñoom Aliou ñaari Aliou yu fi nekk ñoom mbay Mbaye du di nuyu Soña sama jigéen maye nag di tëjee ak sama soxna. yom biram sóoru Ndéla Ndiaye ko ma ñeem mi ci siin ma di dogo mi ci àllub kaañ ma sàmma Ndiaye mi ci yaasaa démb ngóor démb ngóor cenab jigéen maa jigéen maa ngi koy nuyu moom moo topp ci Antoine Félix Diome bi nekk léegi ministre de l'intérieur kon maa ngi nuy Antoine di ko ñaanal yoonam wii mu jël yàlla na ko suñu borom teg loxo fil barakati sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam di nuyu waa parcelle 1 ba 26 ndax ñun du ma ni parcelle banlieue la mais bon lieu la parcel du banlieue parcelle bon lieu la benn waaye dama ko wax mu ne ma lu tax nga di bon lieu ma ne ko li am parcelle amul ndakaaru fenn mu ne ma lu tax ma ne ko parcelle am na géej parcelle am na ay marché unité boo ci dugg am na jumaa am na école football am na terrain basket am na terrain football am na boulangerie am hôpital am dispensaire am stade man leen armée yaa ngi nii moom laa tuddee unité 27 boo tuggee foofu at ba foo dugg am na ay terminus dem dikk am na terminus tata am na ay estation am na ay marché am na sapeur pompier donc loolu koñ yi mu dajale koñ yi ko mën a dajale bariwul donc parcelle du banlieue mais bon lieu di wax waa parcelle ñu mel ni comme ni Modou Lo mel nekk ci koñ màgg fa nekkoo woon dara fexe ba indi leen titre bu ñëpp bëggoon ku ci nekk sa liggéey boo defee noonu bu yàggee parcelle dinañ ko gën a nawloo man loolu laa wax di la nuyu di nuyu aussi grand baba baax wax dëgg yàlla di nuyu sama yaay nag sërëma ci ndaam àll jugul ndaam di jigéen di gaynde jigéen ju mën góor maa ngi koy nuyu nuyu sama mag faat seen borom Dubaay ak xaadim borom South Africa ak nday sukay sama rakk di borom port maa ngi di nuyu ku lim sax da ngay juum mais daal di ñaan télé bi sax te yokk ndax ñu ngi seetaan seen programme te ngeen ko ci kii image yi leer na macha allah seen i question c'est intéressant et puis am ngeen conviction ci seen liggéey jaajëf